bavardage bi déjà <laughs> am na lu ñu ci jukki sànq. ak ñàkk xam ñàkk xam yi fi no ñàkk sax euh, respecteur li ngeen waxoon démb ak barki démb moo xam ci appel à candidature moo xam ci yeneen également yoo xam ne jukki nañ ko démb ci seen point de presse. d'accord xam nga ay argument yu. léegi man dafa am lu may laajte. xam nga des fois APR boo leen dégloo ñuy wax ci état appareil d'état dafay mel ni ñoom dañ ko peeg maanaam dañ ko judduwaale. Mm-hmm. xam nga APR juddu laa judduwaale wu ñëw nguur gi dañoo dox ba nguur gi dab loolu yàggu démb la woon. Mm-hmm. Abdou Mbow boo jëlee formation jël formation président Diomaye Abdou Mbow luy formation mm-hmm. fan la jaar ko fan la jàngee. daa jékki président Diomaye fan la jàngee ENA. école buy former les cadres de l' administration maanaam ñi war a yore état entre président Diomaye ak Abdou Mbow kan moo war a gën a xam état. <laughs> alors ndax question la Alaaji non laaj la parce que foog ñu laaj ko. parce que xam Diomaye. Mhm. léegi Diomaye mi nekk président Macky bi mu nekkee président kan moo ko wax yëf yi nan lay fonctionner l' maanaam lim fi fekk l'administration ñooñu tey ci ron kan lañ nekk Diomaye mhm. du ñooñu ñoo koy expliqué waat Diomaye kon bu waxee ni Diomaye ñàkk laajte la wala ñàkk xam la loolu du argument bu dëgër mais ñoom dañu bëgg a gëm nii le président Macky Macky Sall xam nga dafa yàgg ci nguur ndax yàgg na def na douze ans ak le président mhm. euh, Abdoulaye Wade. Mhm. li ñu bëgg a wax ni moom daanaka ci poste yi nga xam ni euh, jot na ko occupé moom moo gën a téye maanaam xam li nga xamante ne mooy état explication boobu la ñu bëgg a servir mais pourtant ci moom mooy président bi gën a ñàkk téye état ci maanaam ci magistère Macky mooy le seul président bi nga xam ni mooy président de la république bulletin wu renseignement yi liveur yi di ko yor. Mhm. di ci live loolu ci Macky rek laa amee. waaw. ak ñu woowee seen boobu ay mm, activité rek moo fi nekk président bulletin renseignement yi liveur yi yor service de renseignement yi liveur yi yor ko. Macky Sall rek a fi nekk président administration ay opposants gën ko ko téye kon moom Macky lan la peg ak lan la maîtriser. dara Macky danaan réunion balaay génn Sonko génn na leen lii la nas. lii la wax nii la ko waxee diw ak diw la ko waxee. loolu xaw na koo rey nag xaw na ci dof kenn xaw na ci dof ndax mujj gi kenn rek a doon toog ak moom mooy Jean Maxime. ki mu yóbbaale ci fondation bi. donc Macky lan la téye. xam nga des fois APR dañuy wax Abdou Mbow mel nii du ñoom la fi Bruno euh, Diatta doon formé barki dem ci protocole bi ñuy ñëw accéder nekk ay cuune loolu démb la. 2012 bi ñuy falu xamuñ dara ci état nekk ay novice. Mm. ñu di leen formé ci protocole loolu dafa yàgg. mais tey dañ lay wax comme quoi ñoom état ñoom ñoo koy jàngale. ñoom lenn rek lañ xam ci état. tibb sàcc détourné. ak rey. li daal xamoon nañ ko ci état. léegi nag man xam nga lu ma gëm man man sama xalaat waxuma ne moom la jomaay war a def de man sama xalaat. mooy APR heure bi tribunal spécial. waxuma la tribunal tribunal spécial moo war a taxaw di leen àtte comme waa Auschwitz. mu am troisième. troisième troisième Reich ni ñu leen doon àttee yéen ñi defoon crime yi yéen waa APR kaay leen rendre compte ñu yore réew mi ci beneen anam maanaam Diomaye dafa war a yore réew mi créé tribunal baw ko waa APR gis nga ñii di wër di wax yëpp dañ leen war a jàpp. Hmm. pour e-, pour incitation au meurtre. dëgg daanuñ toog fi naan rey leen. ñii di ñii di manifester ay terroristes lañ bu baax. Moustapha Diakhaté ñaatoon la fi génn ñii nan leen rey nañ leen tëj nañ damu caabi seen ginnaaw ba ah, fiñ jom waaw ba fiñ toll nii mi ngi yëkkati kàddu fen di ko teg ci kaw premier ministre kooku dañ ko war a jàpp pour apologie au meurtre jàpp tëj man loolu laa gëm ñoo ñu ci réew mu normal amul fi kàddu mm-hmm. man li ma gëm mm. waxuma ne jomaay loolu la war a def waaye man bu ma doonoon place am benn tribunal gis nga li am Guinée Guinée bi ñuy aate waaw mais ah, non loolu la ñu waroon am mais nag nañ sant yàlla dañ ko séq ko élégant koo xam ni il tient coûte que coûte ci rupture bi mu diggee woon sénégalais yi peu importe mhm. xam nga tey Diomaye xam na ki ko mandat de dépôt mm. xam na ki doon bloqué ay dossier mm. xam na ñi ko jëli ji woon mm. mais fayantewul mhm. moom dafa def acte nit ñu màgg ji nit ñu tedd ñëpp bi leen yàlla joxee victoire dañ ne baale nañ ko mhm. Diomaye loolu léegi nag Thierno Bocoum xam nga Thierno Bocoum fi mu njëkkee raté communication Thierno bi nga ko déggee mu wax nee na dafa génn pour apporter ay leeral ci li jomaay waxta leeru hmm. mais Thierno ah moom luñ ko dénk moom xam nga fu mu daanoo moom annonce su génn bi moo jiitu waxu jomaay ji hmm. Thierno wax na ne dana wax laata jomaay di wax du dëgg le président Thierre wax na ne dina wax. am na lok na tontoom. laata moom sàmba di wax. kon moom lu Samba mënti wax du ko doy moom bëgg tontoo ko neexoon rek. maanaam Thierre lu jomaay mënoon wax du ko doy du ko leer parce que dafa tontu ji jiitu wax ji mooy mami dama laa woo préparer tontu loo wax danaa la tontu moom nii la tontu waa yow waxal rek boo waxee pare ma tontu la kon moom génnut pour leer moom dafa génn pour tontu. Mhm. léegi nag man dafa am lu ma la man dafa lu ma waxoon ay deux ans trois ans yaakaar naa. mooy Thierno Bocoum benn objectif la mooy nekk opposant wu régime mu Ousmane Sonko. loolu bi ma koy wax ñu ngi ci élection mairie ya laa ne du dem législative du dem présidentielle day xaar ba Sonko falu mu nekk opposant ah, parce que xam na ne duñ ko matraque. duñ ko dóor lacrymogène. Mhm. duñ ko jàpp ay duraam danañ ko respecté. mu ngi wër di wax dafa ragal matraque ragal lacrymogène. mais bien sûr Thier yow. xoosoon nañ ko Thier bi mag Sall di rey nit ñi da ko dégg mu wax. waaw benn jour ñëwoon na mais xoosoon nañ ko waaw génn dem toog. Mhm. après woo ko laaj ni mu ci la dem toog sa bopp bu génnul woon day ñaw mais budul loolu gars yii bi Macky Sall di rey nit ñi da nga leen dégg ñu wax. am na beneen. mooy bi ñu wootee ci permanence. Euh, waaw mu ñëw taxaw waaw mooy huit heures mu jéggi woon dafa jeggi woon taxaw Saint Lazare gi na leen maa ngi nii def pos whatsapp barki de maa ngi dégg Fadel Baro naan moom it di wax même chose gars yi du leen bàyyi ndax ay nit dañoo dee pour ngeen falu Fadel bi booy di dee da ko dégg mu wax. Hmm. mais Cheikh Ousmane Fadel Baro lan la lan la j'ai pas compris lan la lan la. Ah, dafa raté dafa raté ah. virage dafa ah, raté Fadel Baro nañu waxtaan. bi ñuy rey ah, nit ñi li muy wax tey dégg naa ko mu naan dañoo ay nit dañoo dee pour ngeen falu duñ leen bàyyi noonu Fadel bi nit ñi di dee da nga ko dégg mu daan mm, mm. waxtaan. nañu waxtaan ngi woon fii ci plateau bi. nit ñaa ngi woon fii démb yàggul ñiy sol robu avocat wu. Ah. Euh, victime nu mu tudd. les yi martyrs yi yëpp bi martyrs yi di dee kenn waxu ci au contraire dañ doon dénoncer naan du façon bii la ñuy defee politique. Mm-hmm. extrémisme bokkul ci politique li ay cocktail molotov bokkul ci politique mm-hmm. maanaam comme quoi ñii dañoo xëy bis rek braqué wu songu nit ñi alors que ñoom dañ leen mate bañ toll ci mur bi kenn mosu ci wax ñi ngay dégg ñi ñëpp ñuy wax gis nga li am mooy gars yi assemblée la ñuy waaj ah lii yëpp loolu la yëpp assemblée waajal déclaration de politique génn touche yëngal pour buñ tasee assemblée li subee si nga mun ci bokk lii rek a leen tax ak yéen mais c'est pas des opposants mm -hmm. mais mais mais façon gi ñuy defee euh, politique bal ma rek papa façon gi ñuy defee euh, politique ndax euh, ñoom bàyyi nañ xel mi le peuple dafa nekk en avance ci ñoom est-ce que ñu ngi koy bàyyi mooy tarre gi ñu tarre looloo tax saa ñu demee ci man gàcce gi peuple bi baleen fa cenn bokkum ban koñ la Moussa Gagne politique Thierno musul dem ca mbañ gàcce koñ koñ laa la koñ koñ fu mu dëkk mbooloo bi gën a bëri bi génn buntu permanence am mooy jour bi fa Sonkoo ñëwee di ko ah. gërëm ah. jour boobu la gëj a gis ful bu toll noonu ci permanence am non day waxtaan bi ful bi génnee naan sonkoo Sonko laa ne nit xoolal tey lay gëj a gis ful bu toll <laughs> day waxtaan xam xama Thierno Bocoum xam man man ah, man man moo nekkoon jour Oscar Mbaye Bakassam ci moom man xama kenn laa gën ci Thierno Bocoum waaye bi fa Sonko ñëwee di ko gërëm en mars 2021 Europe la Thier gi gis ful bu toll noonu. ci waaw ah, Oscar de vacances la woon ci boobu. Thier man xama kenn laa génn ci moom. bi mu bàyyee sa Seck na ànd sut ak moom gis-gis. Idi nekk candidat bi gën a placé mu dem soutenir man ca laa pare ci moom. tout sauf Macky non. waaw non non c' était pas sama calcul ba bokk ci gaal gi saa xolal gis nga mbir boo ko wootee da nga koy nuru. Hmm. ca na bokk mënul wax ni moom opposant la. àndut ak Idrissa Seck ba ber daaraam kooku dem élection présidentielle nga ne moom ngay soutenir nañ waxtaan li am daal ba am muy ñii biru la ñuy def sénégalais yi faale wuñu leen seen bopp nag la ñuy nax parce que li ñuy wax fii lay du génn fële mhm. Bougane xam nga waxoon naan dootuma ci wax mais danaa ah, sànni ci tuuti rek Bougane moom saa yu waxee wane ni moom du lideer bi sénégalais yi di xaar ci moom ah lu tax nga wax loolu Cheikh Anta Diop ci laa ñëw si. ba pare jox ay nit euh, essence jox leen ay koppar ay oto. ñu campagnal le président Diomaye moom am na ko essence ak oto moom am na ko. mais am na ko génn bu gaanay def convoi cinq oto yu kenn newul. Mhm. di wër non nañu waxtaan chaque jour ñu dajeeg moom cinq oto kenn newut moom muy wii wii nit topp ko. Mhm. wàccul nit ñi dàq ko. wàccul ful topp ko waaye fu mu génn sañ ko doy topp nag moom foo xam ne côté Kédougou bi amoon na ñu fa nekkoon ay mais ak ay paa nag du la bàyyi ngay toog di ko waxal loo xam ne amul de ah, ay paa yu laa demoon naa ay paa ko topp waaw naa la c'est <laughs> ay comprendre ñëw nga ne ma gisoo fa kenn ay ca <laughs> man li ma dul d'accord bugaan ne